ay ca bàkk ba jib na de yéen kay groupe des médias ni neexul ba neex waaye Sénégal am na gan gu yeewu bëy ndax Erdogan mii kat gan la goo xam ne ni téewul ak làmmañam ndax dama xamul looy dikkee ci kër jàmbu tàmbalee waññ njabootam waaye yéen kay groupe des médias bi de la tribune nee na ka nag yaayey ndax njiital turki naka la ne cëpp rek ci aéroport ba njiitu réew mi président Macky Sall tàmbale ko ay ministre am tayib tàmbalee a Erdogan mu ne ko wa sha allah waaw waaw ku njaboot nga ndax dama xamne ne kat man mi sama rew lu mi beuri ay nit yep de ñaar fuk kep la ci yor kon nag sàll ngaari sha allah nef ngeen de ne ko dal bant wal fuk ko dije melni ku koy tontu ne ko quand cache la vérité si limuk ay ministre am aha kay day bañ ko ko tu noné lañu Erdogan kon dikké ci ngadalem gi melni rek ku ko fanano way yene kay groupe des médias nee su fa yemoon mu neex ndax kat demb rek sa palé ba ñaari njiitu rew yi dañoo rek janox taskatu xibaar yi conférence de presse ba waye dafa melni mujjuta antu de ndax palé ba bopam dañu dañoo ci taskatu xibaar yi waaw journaliste yi ñu joxe seen i question laata kon rek ñu koy tàmbali journaliste yi di si sox du am lu ñuy wax ñu ne ah comme te noonu la guddul gàttul jàpp leen ni conférence de presse bi da ñaari question képp lay doon benn ba taskatu xibaar yi turki yi ñoo ko moom beneen ba nag biyee boo ngeen booloo rek am ko leen tànn mu daal di koy poser te nag loo leen ci xamul question ba ci boppam da ngeen ñu koy wax laata ngeen koy poser waa dama ne lii nag mooy lan nak lii tamit lan la ana lu ñuy nëbb laas quotidien nii mbaadu xaatim gii dox si diggante Erdogan ak Sénégal si sunu gaz bi pétrole bi la yéene kaay bi ne njiitu réew mi wax na na ko ba noppi de nee na dañuy yaatal nag lëkkaloo gi dox si diggante Turquie ak Sénégal ba si hydrocarbure bi Sud Quotidien ni ko boole si gerte gi ndax Macky de nee na Erdogan gerte bu am qualité la ñu yor gerte gu bëri diw gerte gu baax kon nag waxal say opérateur économique ñu dikk rombatere cu de ndax gerte gu baax ñoo ko moom Le Soleil yéene kaay ni lëkkaloo gi dox si diggante Sénégal ak Turquie de jàpp leen ne ñaar téeméeri milliards ak fukk juróom la ñu teg si table ji de war a juddoo ci ay xaatim déggoo gaz bi kii di mieux réew mi quotidien ne looleen ci xamul de Erdogan ci boppam kontaan na lool nag si njiitu réew président Macky si dogal ba mu jël daal di tëj l'école yaa fu selim yi Erdogan nee ko jaraa boot te di ngeen xam ne ne doo leen ñu gën a ko redee nag li ngeen def doo leen ko benn yoon ko réccuwul dara kay ci ay kàddoom moo di rek Amat Ba ministre la sa Gambie yëral Vox Populi nee na nag Sénégal neexul ba neex autorité yi si boppam ñoo respecté wul askan wa ndax foo leen fekk rek ñoo ngi topp rajo yeex télé di tontu deex a saagante te waroon nag mën taxaw yi tey askan wi Amat Ba ci boppam yemul foofu te ay jooy bëgg a jàpp rek nga ta seex benn douanier sénégalais waa ji ba mooy wax ba tey de nee na kenn nettali ko ko moom ci boppam moo ko dund otaam la taal dem ba ci frontière ba te seex douanier sénégalais nee na la mu fa daj si boppam kersa la ko dikkee ndax seen ak doxalin corruption pire nag du samay kàddu Amath Ba ci boppam ministre la sa Gambie mooy ni xamle l'observateur nee na nag yóbbantewul ay kàddoom de te jëwul benn yoon ndax Mbagnick Ndiaye mooy CDM aha koy wax waa ji Ndiaye fekk na ko Amath Ba nee na ko liggéey leen waay liggéey leen te yi politique bi dafa am app nga la sénégalais ndax dañu koy téewoo nag le quotidien ni wax nga dëgg nag coowal politiciens yi rek dëkkee xarabante axa saagante tontunte jëlal waa parti démocratique sénégalais gannaaw ba nu sàkkoo ñu jël fi kon Aly Ngouille lanu bëgg rek moo di ñu taxawal fa ab haute autorité indépendante su ko defee nag mu organiser élection yi jamono joojee de waa AFP si Sud Quotidien ñu ngay dikkee renfort Aly ndax nee nañu ay kàddoom nag dara mu si nañu ko teg fa mu ko waxee rek nag bu ñu toxal kàddu jàmbur ndax Aly Ngouille Ndiaye la mu wax dëgg rek la ko foofu laa fa dawee man wan gannaaw politique bi nag gestu yi tey wi ak la nga xam ne moo am sa ndar l'observateur nee na de géej ga si boppam moo waneeti boppam mu xataraayu fekki sa askan wa soo ko weddee doxantul ba gànjool jàpp sanca ba lopp fukk si ay njaboot de amuñu fu ñuy fanaan ñu ngay toltolaan ca mbedd ya ndax géej ga màbbal na seeni dëkkuwaay ma jeexalee réew mi quotidien ak laas taxaw seetlu ci boppam la ñu def si mukk ña faatu kon rek ci ay l'accident ci atum 2017 jàppal lu mu gàtt-gàtt junneex ñaar fukk ak benn ci ay doomu ñoo ñàkk seen bakkan ci ay accident te juróom benn téeméer ya ak fanweer ak juróom ya la ñu faatoo de mu ngook loxo dara dina gémmeñ doy na waar Babacar mi aaya de waaye tali bi it aaya ndax reyatul si détail maa la ko wax en gros rek nag lay rey ndax nit ñaa ngi jeex de kon mu ngook dig daje seen yeneen kaay jaa ngeen jëf